dal leen ak jàmm dëgg du rombi nopp ay dëgg yu weex xàtt la Serigne Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes yëkkati jagleel ko Macky Sall ak gouvernement am ci ni ñu géré jàngoro yi nga xamante ni moo di coronavirus Serigne Babacar Sy Mansour mi ñu xamoon ca teega dal ga sell ak franc parler bi yoon am na lu ko metti loolu ci ni Sénégal dal di géré jàngoro gi nga xamante ni moo di coronavirus kaddu yi mi ngi ko xamle ginnaaw bi nga xamante ni ministre de la santé l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr ñëwoon na doon ko jaale si Pape Malick Sy mi fi nekkoon porte parole des Tidianes te yàlla moom ko semaine bi nu génn Serigne Babacar Sy Mansour bi mu jàkkaarloog Abdoulaye Diouf Sarr mi ñëwoon présenté ay condoléances am lim ko xamal nag moo di déconfinement bi nga xamante ni def nañ ko ab démission rek lay nurool te ak njiit du démissionné kilifa gi lim xamle nag moo di ñi nga xamante ni ñoo di bu Sénégal dañoo waroon koo fàcc dañoo war a góorgóorlu ba xeex ko fii lu ko may ñu bari dinañ ci ñàkk seen bakkan leneen loo xamante ni xalif général de Tidiane bi yëkkati na ko mooy li jëm ci wàllu ubbi gi ñu ubbiwaat juma yi nga xamante ni tëjoon nañ ko ngir xeex jàngoro coronavirus lam xamle ci wàllu googee moo di état dafa jéem lu mënut maanaam jéem jim doon jéem a instaurer distanciation sociale ci biir juma yi maanaam nit yi nañuy sorente un loole sëriñ bi xamle na ni mënul nekk l'islam sax santanewu ko ko na li lislaam santaane moo di jumaa yi ñépp di seere tànk ak tànk mbagg ak mbagg si Babacar Sy Mansour nag li mu tëjee moo di na état bi génn ci lu jëm ci wàllu gestion de mosquées ndax du cëram